mag yi c'est un président qui n'est là que pour diviser pour mieux régner. cest à da ko def da ko mi ngi koy def ci réew yi da ko def ci région yi def ko ci kilifa diine def ko ci société civile bi def ko ci organisation syndicale def ko ci étudiants yi def ko ci santé bi def ko ci même les journalistes tey mu ngi koy def nii gis nga gis nga bi muy def déclaration discours à la nation. Mm-hmm. dafa choisir organes yi mu war a waxal télévision yi mu war a waxal ba pare jël seen temps d'antenne ça pour saboter li nga xamante ne moo discours am saboter aussi les plateaux de télé yi nga moo war a am après sa discours et c'est comme ça qu'il gère day frustré ñooñu kontaan ñenn ñi xam nga loolu mu def noonu. day rek sa te gisul ne tamit poids électoral tamit. Euh, si baykat yi la ëppee. déedéet déedéet déedéet déedéet c'est-à-dire. Macky c'est comme c'est un homme ci ni ne c'est-à-dire intelligence am fi mu ko orienté moo baaxul ci réew mi c'est-à-dire que day juri ay problème te dañu nekk si obscurantisme c'est-à-dire que bu garaaw lañu nekk te obscurité boobu pour ñu mën a gis lumière bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu bu ñuy wan yoon bu ñu war a jaar dina metti parce que lépp la Macky jaxase da ko jaxase c'est-à-dire que tey nan lay def day dem ci benn village yóbbu fa ñaari poto lampe village bi gis courant ñu ne wéy il a électrifié tout le village il fait du saupoudrage saupoudrage boobu muy def nag moom la jéem a en mal ci situation bi ñuy dund nii avec le courant c'est-à-dire tey non seulement courant bi sax dañ ko yokk c'est-à-dire que tey la ñu wax ne courant bi dañ koy yokk parce que ils sont obligés ñu wax ko parce que léegi presque tu payes le double de ta facture mais nit nag bu demee ba daan fay 4000 di fay 8000 danaan mais qu'est-ce qui se passe mais ñoom dañu nekk ci benn position boo xamante ne ils sont obligés ñu expliquer Sénégalais yi ne on va vers une augmentation mais on va pas vers une augmentation sur augmentation lañ jëm parce que augmenté nañ ba pare maintenant sur augmentation boobu na la ñuy def c'est dañu dem ci benn village ñëw réceptionner ay villages yoo xamante ne dañ ko électrifier ça fait très longtemps duy bees de léegi fu mu nekk nii moom la ñu beesal. ñëw na yéen xaalis bi ñu jot a récupéré si yéen ñu ngi nii moom lañu jël dem ba ci àll bi électrifier village yi xam xamante ñoo nekk si àll bi àll ko si foofu voilà l'erreur donc ki si àll bi bu gisee ñaari poto lampam danaan mais yéen ñi nekk ci tax li amu leen daal wax parce que bu fekkee ne lii moo tax Macky Sall yokk courant bi donc c'est une très bonne mais nit ñi du ñu xam lan moo tax ñu yokk courant bi. mais est-ce que loolu tamit taxaw na parce que moom dafa am PUDCM te ci biir euh, PUDC bi dafa am volet électrification des zones euh, rurales donc du coup man je me am na benn budget boo xam ne dégagé na ko pour loolu euh, déjà le ministre de l'énergie moom il a tenté d'expliquer wu tax yokku yokkutef boobu mu nekk loo xam ne xel mun na koo nangu parce que mun nañoo jàpp ne baril pétrole bi dafa yéeg bien vrai que ñoom waaw kay foofu nag laa bëgg a ñax sa fekku na na ma bëgg nga déglu mu baax nan la Matar Cissé trahir le peuple sénégalais nan la Matar Cissé tromper le peuple sénégalais nan la Matar Cissé par son image waa nit ku jub la nit ku dëggu la nit ku gëm Sénégal la fekk yooyu mu doon wax gëmu ko tant Ablaye Wade dund ñu fi crise énergétique mm. xam nga baril du pétrole ñaata woon cent cinquante dollars est-ce que xamoon nga loolu. Mm. ba pare mu daan def subvention de cent vingt milliards par an xam nga xam nga ne courant bi dañ ko doon subventionné. Mm. état bi si daan dugal xaalis. Mm. muy cent vingt milliards. Mm-hmm. te pourtant courant bi yokkuñu ko. te ju dañ dañ ko yokk cent cinquante dollars. 120 milliards la temps Ablaye Wade daan génn pour dimbali askanam. mais temps Ablaye Wade te kuy xamaj bi bëri woon na xaaral ma wax la xaaral ma wax la. Hmm. ba pare waaw xuy comme que temps yooyu li xuy xamaj gënoon bëri. Hmm. donc foofu lañ gën a mën a yokkee ba pare baril du pétrole nekk 150 dollars. Hmm. ba pare moom mu daan subventionné te yokkul courant bi mais xuy xamaj boobu lan moo ko jur. loolu héritage la bu Wade am jot fii ci Sénégal bu fàtte ne Sénégal rek ñoo ko daan doxal ci wàllu central. muy Manantali ak central Cap de Biche central Cap de Biche bi koy Ablaye Wade di jël dafa xubi xam nga boobu maa ngi xeex wan Wade mm. dafa xubi daas c'est-à-dire li daan dawal machine yi gasoil la te gasoil bi ko daan doxal daawuñu ko entretenir premier budget presque de de de de de de de de plus de de plus de vingt milliards li Ablaye Wade dugal Cap de Biche pour la maintenance di machine yi nga xamante ni moo nekk au niveau de Cate de Bis Macky Sall mi moo ko njëkk moo ko njëkk inauguré xam nga lool xam nga lañ jaay xam nga lañ fi bàyyi woon. Mm. make up xam nga make up mm. mooy jigéen ñi li ñuy def seen kanam c'est-à-dire make up nga may jaay fekk make up bi ko ku jigéen ki jëndee nakati moo gën a ñaaw ci Sénégal alors que Séné Sénélec toll na benn moment boobu fi Abdoulaye Wade nekkee make up la woon loolu moo taxoon bi mu koy bëgg a récupérer waa waa hydro waa waa ñi nga xamante ni ne mooy les Québécois euh, waa Hydro-Québec. Mm. cest à dañ ci euh, euh, ges euh, okk bu ànd ak gesu la sa à dire ñoom biñ koy bi koy la Wade di demandé waat pour ñu jox leen ko fekk ñoom bëggoon nañ fekk ñu bëggoon ko joxe ndax mënutuñ ci mënutuñ investir mënutuñ ko mënutuñ ko parce que li leen li leen li leen PS jaay nakate dara baaxu si biti bi rek moo rafet nekk si biir dara baaxu si léegi nag il fallait Wade mettre une politique de restructuration du d'ajustement ba tolluwaat maintenant à ce niveau où 2012 bi ñu koy jox bi ñu koy Ablaye bi ñu koy Ablaye Wade di di ñàkk nguur gi fekk on est zéro coupure de courant. c' est loolu change boobu la Macky Sall am. Hmm. donc dañ ko doon régler gis nga gis nga même bul fàtte ne waa GTI ñi nga xamante ni ne ñoo nekk Cap de di ñu loué di ñu i i kii nu commandé. seen matériel seen matériel yi. Hmm. ab Macky Sall daaxoon na leen. Hmm. est ce que est ce que est ce que dem nañu. avant ñuy egg aéroport la leen oowaat. naka te il a compris pourquoi Karim Wade loué woon. li nga xamante ni ne mooy groupe yi nga xamante ni moo fi nekk mais tey ce problème a été réglé mais bi ñu koy réglé dafa fekk après nag si la Abdoulaye Macky Sall jëlee nguur gi boobu fekkoon na Abdoulaye Wade mënatul wax sénégalais yi mënatul wax ba nit ñi ko c'est fini pour ñoom sénégalais yi il faut rek mu dem bi Macky Sall ñëwee nag fekk na ñu nekk ci zéro coupure de courant d'ailleurs si passation de service entre Aly Ngouille Ndiaye ak Karim Wade Karim Wade wax na ko mm-hmm. nee donc 2012 fekk na loolu ñu réglé ko mais instant boobu aussi bi ñu koy réglé bu fàtte ne la baril du pétrole était à 150 dollars bi ma la waxoon. Mm-hmm. wàdd di subventionné te yokk courant bi. Mm-hmm. waaw léegi fan lañ toll léegi d' abord bi 2012 bi Macky Sall di yor nguur gi xam nga baril du pétrole ñaata la woon. 40 mm-hmm. dollars 40 dañu yokk est que dañu wàññi dara ci Sénégal réew mi mën na Sénégal chaque fois bu ñu daan wax yokkute. fa lañ ko daan non chaque fois bu ñu daan wax yokkute dañ ko daan mesurer. déjà ñoom ci prix ci prix du baril du pétrole. déjà ñoom. dañoo ñëw fekk baril bi a quarante dollars. à quarante dollars. bien vrai fu mu toll nii mun ne ne baril bi am na hausse. mais ñoom tamit est-ce que bu ñu amoon benn politique bu xarañ. ba ba ba baril pétrole bi yaa euh, wàññeekoo. ba mu wàccee wàccee ba suufee sax. waaw munoon na am def seen euh, ay kii yoo xam ne euh, ngir mun a maintenir cap boobu. waaw mais laa wax fu même bi mu nekkee quarante dollars. Mhm. dañoo wàññi wut. c'est donc lan moo ci changé c'est-à-dire les prix les prix là restent fixes. Mhm. amul dara lu ñu wàññi xam nga moo fi wàññeeku. li fi wàññeeku mooy li UNACOIS yokkoon pour daaneel Ablaye Wade. Mhm. loolu la ñu jëndiwaat. te li ma lay wax nii waa UNACOIS ñoo ko wax ci benn émission bu ñu leen ñu ne li fi Macky Sall wàññi mooy li ñuy yokkoon du temps fii Ablaye Wade nekkee pour war Ablaye Wade ne ko ñun am na lu ñu mën a. am na rôle bu ñu mën a ci réew mi fii. mën nañu jàpp kon su ma la déggee nos dirigeants euh, dañuy jël population bi di leen di tenir ay discours mensongers et ça c'est dangereux. non c'est-à-dire cest loolu moo fi am. Mhm. cest à dafa bëri ay amalgam ok bëri ay propos mensongers. yaa ngi dégg ay ay ay bizarreries yoo xamante ni dañ koy wax askan wi te fekk du loolu gis nga tey yow ab Macky Sall lu lu lu baril di pétrole mënoon jar tey Sénégal mënoon na si génn. mënuñu am problème boobu mais li ko rey mooy niveau d'endette d'endettement. waaw est-ce que tamit nekkul ne comme li nga wax les lay wax. Mhm. cest à gis nga baril du pétrole bi sénégalais yi il faut ñu xam benn affaire cest à xeex bi dafa nekk xeex bu légitime parce que amoo dara lu justifié tey jii lu war a mën a tax ñu yokk courant bi amul d'abord dañu waxoon ne après les élections deux mille dix de deux mille vingt Matar Cissé taxaw fépp ne dañuy wàññi courant. ba naan ba dañu di leen jaayoo. Mali dafa nag mu ne dañuy jaay. dañuy ko non jaayul Mali Gambie la jaay bu ko fàtte. yaa ngi dégg bi ñuy waxee ne Matar Cissé nee na Matar Cissé la la Sénégal commence à vendre du du du de l'électricité ñu ne fan lañ jaay ñu ne Gambie xam nga nan la mel il faut ñu xam ne centrale ñett dañu xam ne centrale ñett yi la production distribution transport. Mm-hmm. non transport distribution. damay dama koy togg transporter ko. distribuer ko maintenant Matar Cissé fan la naxee Sénégalais yi pour defar son image moom waree na Sénégal commencé na jaay courant saa dafa mël na tey may jaay courant may yóbbu courant euh, euh, euh, Kédougou bi ma déwee ba Kédougou xam ne la ma fa yóbbu am na excédent xam nga courant kenn du koy stocké mu xam ne mënu koy ko stocké ma jël la ci la sànni Gàmbi jaay leen ko moo tax ñu ne hmm. Sénégal dafa commencé jaay courant léegi courant boobu dañ ma waxaat depuis lors fan la Sénégal jaay courant. doo ko gisaat gis nga donc nit ñi naxee Sénégalais ci communication. di manipuler non di manipuler ñi c'est c'est-à-dire c'est un c'est un c'est un pouvoir de manipulation de manigance. donc ils sont dangereux hein. extrêmement dangereux ñoo raw missile <laughs> ñoo raw volcan.